boo asalaamaaleykum sama gars voilà j'espère que yéen a ngi si jàmm moi maa ngi si jàmm euh, voilà euh, dal leen ak jàmm seen seen Like Mobile votre seen de technologie tey astuce bi ñu leen di mooy naka ngay def euh, ba def benn vidéo bu plus de cinq minutes nga def ko étaté voilà parfois da ngay toll foo xam ne da ngay benn vidéo mu am cinq minutes cinq minutes léegi boo ko étaté mais da lay laaj nga def ko ay parti parti te loolu parfois du doon loo xam ne da lay gën léegi nag. te naa la woon tey benn astuce si whatsapp CB euh, boo xam ne euh, di nga mën a def léegi vidéo cinq minutes léegi ci sa statut euh, sans nga def par ay parti parti voilà sans plus tarder ñu lay ñaan bul fàtte ba si bouton abonné bi ay bi vidéo partagé ko daal di activer cloche de notification bi loolu dina tax vidéo boo xam ne dugal nañ ko rek di bokk si ñi ko ñi nga gis te loolu dinañu yombalal liggéey bi ñu def voilà léegi pour ñu def benn vidéo si whatsapp CB Euh, esthétique euh, benn euh, benn cinq minutes si WhatsApp C bi c'est très simple voilà léegi nag bu dee astuce boobu si WhatsApp C bi la disponible mais pas encore si WhatsApp WhatsApp simple voilà léegi qu'est-ce que on doit faire mooy dañuy dem suñu WhatsApp C bi léegi li ñuy def mooy dañuy dem xool suñu WhatsApp C bi voilà voilà léegi léegi gis nañ suñu WhatsApp C bi léegi. day dugg si whatsapp CV voilà léegi ñu dugg voilà léegi suñu whatsapp CV muy ni léegi ñun euh, tey lañ leen bëgg def dañoo am benn statut buñ bëgg a dugal mais statut bi buñ ko bëggee dugal euh, euh, maanaam statut bi cinq minutes la durée mais buñ ko bëggee dugal dañuy laaj pour ñu def ko partie par deux minutes par partie partie partie te loolu euh, mën na doon loo xam ne maam euh, du ma maam maam du du doo xam ne moomay gën a voilà léegi ñun nan lañ def pour def euh, statut boobu cinq cinq minutes voilà léegi bi ngay njëkk a def mooy boo xoolee sa droite am na trois points yu nekk à droite voilà léegi moom ngay cliquer léegi nañ cliquer trois points voilà léegi buñ cliquer trois points yi léegi buñ xoolee première option bi ma ngi ma ngi defal CB string voilà léegi dañuy kil dañ koy cliquer voilà léegi bu ñu ko cliquer bi mooy tijjeeku léegi fan la ñuy xoolaat mooy euh, bu ñu xoolee suuf am na fu mu ñu defal home screen voilà léegi comme ko anglais la léegi dañ cliquer fi mu bindal home screen voilà léegi ñu cliquer ko bu ñu ko cliquer automatiquement bi mooy tijjeeku léegi ñun euh, comme que ñun dañoo bëgg a def benn vidéo cinq minutes voilà esthétique léegi fan lañu cliquer euh, mooy statut parce que partie statut bi mooy ñor ndax statut euh, benn vidéo lañ bëgg a def statut voilà léegi day cliquer fi mu biral statut voilà léegi boo cliquer statut euh, fii la lay dugal comme que yow sa trou maam sa canal sa canal maam whatsapp bi ma nekk di si kaw comme que jëndoo defagul si woon profil moo tax voilà léegi bu ñu wàccee suuf voilà léegi nañ wàcc suuf par nank-nank voilà voilà voilà léegi automatiquement trouvé nañ fu mu ñu defal euh, cinq minutes esthétique mu ne léegi yow bu dee da nga bëgg a def benn vidéo boo xam ne euh, dafa durer cinq minutes euh, maam dafa dafa dafa durer dafa durer cinq minutes nga bëgg koo def esthétique léegi mën na doon léegi maam temps maam durée bi mu la may nag du passé cinq minutes trente secondes voilà léegi bu defoon cinq minutes trente cinq secondes euh, du dem parce que ñoom lu ñu xas may rek euh, benn minute du si benn seconde du si tegaat voilà léegi euh, pour l'instant léegi mën nga def benn vidéo trente secondes si statut maam sa sa sa sa WhatsApp CB voilà léegi lan ngay def mooy pour nga def vidéo boobu noonu esthétique euh, boobu noonu esthétique bi diire cinq minutes nga def ko esthétique nan ngay def da ngay activer euh, da ngay act donc da nga koy activer voilà comme boo ñëwee da ngay fekk mu désactiver wu léegi da nga activer voilà léegi boo ko activé automatiquement nag léegi vidéo boo xam ne yor nga ko mu diire cinq minutes trente secondes man nga koy def estati euh, voilà sans nga koy def ay parti parti mais moo xam ko bu defoon cinq minutes trente sept secondes doo ko mën a estati parce que euh, ñoom li liña may moom rek nga mën a dugal euh, il faut que da ngay da ngay fexe def comment on dit da def cinq minutes estati plus trente secondes yi léegi nag nga xool. quelque euh, sept secondes si des nga euh, nga dem ko def parti boobu parce que ñoom duñ duñ la mën a permettre euh, nga def ko esthétique voilà parce que ñoom lu ñu la xas may limité rek foofa la fa ma mën a léegi nag comme que activé nga ko léegi mën nga def vidéo bu passé cinq minutes trente secondes si sa WhatsApp CV voilà Euh, voilà sama gars léegi loolu moo doon vidéo bi ñu lay wax bu leen fàtte ba si bouton abonné bi daal di vidéo bi partagé ko activé cloche de notification bi loolu dina tax vidéo boo xam ne dugal nañ ko rek euh, ngeen bokk si ñu koy njëkk gis voilà sama gars yi